CRD la boo xam ni njiital gouvernement bii di Amadou Ba moo daal di ko jiit. concerne l'éducation nationale. est dans un état de délabrement très avancé. à l'image même de pas mal d'écoles primaires. Le deuxième secteur que j'aborde concerne la santé, l'hôpital Alioune Badara Cissé. Mais ce que nous sollicitons vivement, c'est le démarrage des travaux de cette infrastructure importante au niveau international parce que mondial de mu dee càkkutéef yoo xam ni premier ministre bi lee di candidat déclaré bu mouvance présidentielle fas na ko yéene saafara bis buñ ko tege ci bopp réew mi. par exemple pour le programme de réhabilitation des écoles. oui dès 2024 il y a une partie du budget qui va être euh, consacrée à la réhabilitation des établissements scolaires au niveau national. pour ce qui concerne l'hôpital de niveau 4 c'est une préoccupation très forte. vous aurez votre hôpital de nañ nemmeeku itam yeneen jafe-jafe yeneen i secteurs yu fasantikoo mu di ay jafe-jafe yoo xam ni laal na càmm gi napp gi ak njënd meeg njaay mi mu di ay jafe-jafe yoo xam ni njiital gouvernement bi fas na ci yéen indi ay saafara ci ay bés yu ñu dëgmaa la